kundi da ngay jàkkaarloo ak président Macky Sall sa place mooy biir yeewu askan wi moo tax parti fépp taw féex biñ ko créé ñu ñëw dugg biir yeewu askan wi ànd ak góoru Sénégal yi pour ñu gënal fi Macky Sall Macky Sall devra faire face au peuple sénégalais pour avoir un troisième mandat boobu combat moo tax fépp taw ñu ànd avec tous les leaders di yeewu askan wi pour ñu ñëw bokk ci boobu combat te tey nii ci waa Ndakaaru taxawee waa banlieue dinañ taxawee noonu nu ko rawee pour que Macky sàll ñu jële ko Sénégal.